ndab jolleeti na ku doon jooy kekkul fii tiib tey ku doon nelaw kon yeewul mafxuulul mafaaxalatun faxlul ay tàbbee ci biir jataa tey pàntal bëggoon naa du su doon daa aayul day sàllar ñi ko di tëb ak tey dal bëggoon naa yëngal samay cër jagleel waa ahlul kafe ngir fasal seddu xol bëggoon naa wëndeelu gaa ji poojal tam lii tey ba ñëpp naan jóob toogal mais nag ñun duñuy gëwal yuy feccal buñ xewlee ci ay bayit dañ koy kal waa ahlu la fi nuyu ci jiital te ñaanal ku teew file ak njëggal te tax ma jóg taxaw ngir salgar tey kañ waa ahlul kafe may fental bii daaj ma waxoon xalil lum fentul lay bàkkal wa ahlul kafe ñooy ponkal ponkal ku weddi lii daal laajul lin yembal ci ak liggéey lin eggal na surma ci ay saxarëk lin làmbal yeggal ti ba gis ñin sottal moo tax man ma jug te jug tey fental say bayit ba faw yéen laa àndal xaloo da ngeen a xariñ loo leen dëgmal yomb salaamatan ak ak dal njaxlaf gi xalaat yu ñëw yin jiital fidyaare ba lu ndajal daat koy wal waa ahlu kafe bi lay ñooy ponkal njortoon na ne doo commande bay yeggal ahloo daman seex damay seedeel mbar ci tund yaa leen jaaxal ban kër yee ahloo ñu dem tey feetal am ñeen yu saboote naan lii yombul naam yombul ni daa xamul ñin àndal ñin àndal ku xam ku xam na jàndal neexoon tey mu ñëw ba gis liñ yeggal leen xàllal watib lii daal tuutul ñun xam ne seen jom ji tax loolu sémbal sin maam bamba daal di koy far sottal buur yàlla leen may ngeen mat am xel ngëm-ngëm moo leen may ngeen nat koo songul du tàppet du ab ragal ku ne làngal bonu seetloo mbiram demu ñooy far jombal watib di laay waxal waa ahlu nan gàddal ko ak sëfal ndem yombul bég nañ waa ahlu te seen naal ñii lul yéen jaaxal seen noonu yeneen semmal ndeysaan wàcc leen ñu wax yow joobal bu leen tontante gaynde njaay dum bulbul du leen seen maas bu leen nelaw yaay jug ban tëddee xara ngeen jóg daa seen xel yenn sob rob avocat yenay kaasal waa ahlu la koy taqal yenn koy kal lii yombul du dit lu ndaw ak jagleel gun fàggu yéena ko ji bam barkeel jublool maanu dëggu tax ngeen fàqal seeni noon yar bu safte leen ciy bantal waa axloo di suñu gannaaw ñooy ponkal lu ñuy kafe lu ñuy xëccoo ñoo koy jël duñ taalmedd duñ geref duñ wengal mànkoo ci ndiggal nangul kin jiital booy làkki arab ñu man laa jàngal booy làkki tubaab ñu xaw laa jommal booy àngale nag seeni booy ñëw kil yaag booy julee la man laa noddal booy ñiitoo feneen sa kër daa tàkkul booy wàlli sabar sa kër tëggul du la jëggaani leen ndax ñax ñin àndal na lépp teg ci dimbar kaamil kon axla dundal seen seen may wal bawan ba ñëpp jot seen xeewal Cheikh nga Diop tëyal sa way ndam yëggul teg baaraam ci foofu ngir doo jeexal maf xoolul mafaalatun faxlul